kontaan rek bëgg dama kontaan fi mu ne nii contentement bi ma am dafa ëpp ndax euh, lii dama koy yéene woon sama dirigeant yi parce que dañu sonn dañu sonn si équipe bi depuis ay at yi nii bu ñu ñëwee départemental demi final ñu éliminé ñu par série wala quart de mais ñoom ñu soxla woon ko trop daal di ut ay moyens def si ay moyens pour gagner football dañuy wax moyen la mais ñoom dañ jël moyens yi def ko si pour gagner coupe bi kon donc loolu moo ma bëgg loo loolu moo ma bëgg loolu tey bu ma jël bu ah, ñu jël il ñaax xale pour ñu gagné coupe pour ñoom coupe bi pour dirigeant yi la ñoom ñoo ko moom. waaw match bi xamoon nañ ne du yomb parce que dañ doon daje équipe bu déggoo boo xam ni xam nañ équipe bu déggoo bi dafa baax dañoo mën a football ba pare am nañ maanaam loolu ñuy wax cawarte rigueur kon nag doonul woon yomb xam ñoom ñoo nekkoon meilleure attaque ñoom ñu nekk meilleure défense. kon donc opposition attaque défense loolu xamoon nañ ni ñoom défense bu baax la ñu am kon donc pour dugal leen bit dina metti te ñoom dañuy jouer ci couloir lu bëri parce que dañoo am joueur boo xam ne ñu koy woowee Messi koo xam ne ci côté boobu nag tey il est dafa dafa dangereux dafa mën a football macha allah ku mën a football la ci moom la ñuy jouer ci côté bi donc ñun ñu jéem a euh, euh, euh, xañ leen côté yi bàyyi leen pour ñu jouer ci digg bi pour buñ ko récupérer placer ay contre maanaam ay contre pour mën leen a bett dugal leen bit te si loolu. la ñu amee bit bi ñu sant yàlla bu baax a baax di féliciter samay joueurs di di encourager waa Deggo. je au football mais je pense que peut-être je pourrais dire que l'expérience a prévalu parce que qu'on était en face avec des joueurs des vieux routiers et su exploiter euh, les les les voilà notre nos nos je pensais ça mais on a joué comme il le fallait ok. Non, je pense que euh, si vous regardez le match, hein, c'est un match équilibré. Et je pense que euh, c'est une erreur que nous avons pris. Un but, mais c'est une erreur de jeunesse. Parce qu'il n'y avait pas de danger, ils pouvaient jouer avec le gardien. Mais c'est des choses qui arrivent. Donc je pense qu'il fallait un vainqueur et un vaincu. Et puis c'est comme ça aussi le football. L'avenir de votre équipe, c'est quoi Bon, je dis que euh, j'ai un jeune équipe. Hein. d'avenir. C'est des jeunes joueurs. de, de 20, 20, 20 à 21 ans. Donc je pense que voilà, on va se préparer en conséquence. Je les ai demandé d'aller jouer au niveau des championnats et de se peaufiner pour l'année prochaine on puisse vraiment euh, se reprendre et essayer de gagner la Coupe départementale.